waral combat ndax boobu combat bi dafa amoon xiiroo ngaayoo bu ci amoon ay werante rek ci ay affaire prix ay 5 millions Malick Gakou ne ko jël ko naa la jox 5 millions léegi 5 millions yow ko joxoon nag ko jox kilifa la te combat bi dafa yàgg te dafa metti combat bi dafa yàgg te dafa metti comprendre nga di ñaanal guy gi yàlla dafa ko jàmm ci jour ba léppam dox léppam dox. léppam dox su ngeen gis lamb ju neex ndax guy gi mi ma gis bëgg na combat moom mooy maire de Saint-Peur maire de Saint-Peur yàlla na ko yàlla defal jàmm. déedéet dara yaar yee lu ñuy moytu si moom lu muy moytu ci moom soo amee lu muy moytu si moom ñu wax ak moom lan lay moytu si lay moytu moytuwul dara ci rek rek su dimanche ngeen xam lépp dëgg yàlla lu yàlla suturaal te mu set ñu ci jàpp allah me te léppam dox suur ba léppam di fonctionné léppam di fonctionné loolu rek laa koy ñaanal man yàlla ko yàlla defal maa li na ko jox 5 millions yi ndax combat bi dafa yàgg te dafa métti te kilifa la biir Guédiawaye na ko jox 5 millions. te ñëpp àndandoo tàccal ma Lirou Diane ba ñëpp dégg ko kii sunu grand la sunu monument la suma mag la suma xarit la suma kilifa la ginnaaw ba nas mi nga xam ne nii mooy suma lépp jàllee mënuma am lu ëpp Lirou Diane bi ma koy programme pour tuddee ko ko deux ans la wallahi wala si deux ans moom ak benn garaam moo Ndiaye Seydou Madeleine ñu toog ma ne ko dinaa bett ñu bëri mu ne tax ma ne ko su de presse lii laa ko tuddee moom it mu nangul ma lépp di ma conseillé heure bi war na fekk may wax toj toj ci média yi mais moom moo ne ma rek am nga ko loo noppil te li wax laa def loolu rek laay seet ci kaw mbooloo mi mais ci kanam tuuti bu ma jëlee kàddu moom dina wax dinaa gën a wax ci moom dafa guddi moo tax di nuyu suñu grand Basirou Ka borom terrain yi mi ngi nii toog jox ma ñeenti terrain boole ko alalam jox ma ñaanal ma ñëw suma open de presse Ka kenn du yow nuyu sama grand frère nas koñ bi oo ma seen fay géewaay ñëpp ma bëgg mais koñ bi oo seen fay oo seen fay sama xol laa ko tibbee koñ bi man ñëpp ma bëgg ci ah Père laa ko jiital Lamine ñas Omar Der Fagne Niass Grand Lamine Espagne Italie képp koo xam ci koñ bi nuyu naa la gërëm naa la dawalkat sare na moom waxaalu ma leen ay ñoom Demba Ama waaw soo bàkkoo ba pare bu kenn bougé gis nga ni ñëpp toog fi nga ñëw taxaw nii yow ne taxawal rek gars yi jox na micro yi nga wax li nga wax boo bàkkoo ba pare bu kenn buuse fi nga taxaw na nga taxaw kenn fi nga toog nga toog. kon yéen a dégg ay ñoom am gàddaay waa piip piip fàttewuma leen su ma bàyyi ma kenn su ma paree dinaa gërëm ñëpp sant ñëpp. yow amoon noonu yow ñëpp la bëgg ndax sa xol dafa rafet àdduna amul solo nit ku dul jàpp di bàyyi amul yow jàmm ngay am te incha allah rabi la fee li nga xam ne jàmm ngay am di daan jëlee seen wécc rek nga ko jox ni nga wax yéen a fuu rek nga neel benn beneen bi ma wax ne am na ñu jàppee seen bopp kilifa mu bëgg a dox sama diggante géejewaay ak diggante ak Balla Gaye def ba tey sociologique naan psychologique naan naan euh, euh, nekk géejewaay naan mbër yi dañ xeex kon su nee mbër mi ñëpp a dem ci Balla Gaye neel waaw benn ma génn leeral ko ma ne ko waxuma mbër su ma nee mbër yàlla na yow yàlla nga ma daan tuddoo mbër sax tudduma mbër déedéet tax ma jooy maa ko xam kilifa nga wax Balla Gaye def na émission jooy jooyati jooyati jooyati dëgg mais man la tax ma jooy maa ko xam dëgg la mais jooyu kenn ku ne ko moom mais lu tax doo jooy moom ma deena jooy naan ma jooyu gëmu ko mais loolu kenn du ko def naan jooyu li ma dal yéene ma ko yàlla bu mu ko dal ba ma jooy yàlla bu mu ko dal man du ma am bata suklis di woote wàllu nee na may woote wàllu ñaata combat laa fi billaahi ma dem stade yàlla may ma ndam kon du man sotti Omari Ndak laa sama maam diineem deret ak i bal la ko jëndee man sëtam laa bis bu ma ruuxee ba ba ba ba ma tàng. këpp ko fi reer yu bari. boo ma tuul eh, combat bi dafa am ku la digoon 5 millions la boo ko jëlee. waaw bi dafa am ku la digoon 5 millions. waaw loolu noonu grand liir non dama ne non defal ndànk. liir defal ndànk. waaw non liir di wax liir di bi biñ ko bëggee taxawal yàgg na mais dañu dégg ne da bañoon jël combat bi. jubóowuloo jubóowuloo promoteur bi. am ku la woo. ne la boo jëlee naa la jox 5 millions. jox na la 5 millions yooyu. moom Papa la maa leen nuyu yëpp di leen gërëm. di leen sant moom wax loolu moom champion la. def na fi lu ne ah. ndaanaan la këpp na fi ay reeru jàmbur ba tàyyi combat bi dafa métti gis nga tey Reug Reug su wu woon guy gi du bëre ak moom ah. ndax guy gi moo ko aw ci lambu li guy gi fayeeku Reug Reug fayeekoogu ko comprendre nga ñuy wax combat bi di ko dox comprendre nga léegi après jubóobu la promoteur bi mu am lu dox seen diggante ak moom muy 5 millions dox seen diggante ak moom Malick Gakou ne jëlal combat naa la jox 5 millions te Malick Gakou kilifa la biir Géejawaay te euh, nit da ngay sa kàddu te nit soo gàttee da a bëgg ñu naw ñu respecté la da ngay sàmm sa kàddu 5 millions yooyu mu ko digoon nag ko ko jox combat bi dafa yàgg dafa metti te làmb dafa metti oh, oh, oh. li ma ko wax na jox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 sëñ Cheikh Mbor Far maa leen nuyu bu baax sëñ Abdou Karim maa leen nuyu bu baax a baax képp kuy taalibe sëñ Cheikh Mbor maa leen nuyu bàyyi ma kenn gaaw guy gi dafa am benn question bi njëkk mooy yàgg rëg-rëg mbëru simple la fu mu jàppee dañ naan làmb ji jeex na yow mbër boo xamante ni saa yoo jàppaan ñu ne làmb ji jeex na tey ñu dégg nga naan da ngay xeex rëg-rëg naan day xeex yéen ñaar il faut da ngeen di bataille psychologique rek ku nekk di jaay moromam xel bay bala benn moom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 Masata Ala Ndiaye di ko nuyu bu baax mu ne ma maa ngi teewoon dama fi am soxna te dama xaw a tawat mais fan yi maa mu ne ma gara mu ne ma rakk li nga def rafet na trop mais su ma ñëwee naa la woo ma woo Aziz Ndiaye jot bool vocal ma ne nas woo ko bala ñoo commencé dara commencé ci Aziz Ndiaye ak Masata ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw Baara Gaye Baara Gaye ak euh, Baara Gaye waaw mais kil kiling owel Baara Gaye bu meer yëmbal su ma su ma frère la su ma deret la avant na ma xaalis bari ndeysaan ñu waxtaan kooku moom su ma la yaa ngi dégg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 woote bi